loolu la ñuy ñaan. waaw alors ni noonu comme ni ko Xaarim euh, Ndiaye euh, waxee moom nee na képp ki nga xamante ne gaal gaa ngi fii nañ ñëw dugg ci gaal gi. kon yaakaar naa ne du euh, duñ def lu dul comme ni mu ko waxee ñu dugg duggaat ci feneen benn affiche bi nga xamante ne mun naa ne adduna moom lay xaar. ni hmm. Ama Baldé ak Modou Lo. personne nañ nga defal ñu analyse ci combat boobu. Hmm. parce que jege booy <coughs> booy da tudd njëndeem de. <coughs> xam nga man bi làmb suñu làmb jeexee man suñu làmb sax xalaatuma ko woon noonu mais bi làmb ji jeexee ba ba ba arbitre di su ba avant làmb ji bi arbitre di suufle ci diggante guy géeg rëg-rëg dama xalaat Modou Lo Ama Balde bu arbitre naan suufle leen Modou Lo ak Ama Balde bu ngeen lu tax nga xalaat loolu non li tax ma xalaat ko mhm. mooy dama xam ni Modou Lo mhm. champion hors la téerwaa bi mhm. bi mu ko jëlee ba léegi amu fi te ci kan la ko jëlee ci waa Pikine. dëgg la muy bëreeg doomu Pikine boo xamante ni tey pikin moo mm-hmm. moo moo yor flambeau bi Pikine gépp moom lañu yaakaar mm-hmm. muy xale. Mm-hmm. toll ci lamb. yor fukk de jeunesse ba pare mën li muy def móodloo ne ko may naa la chance pour ñuy xëccoo roi bi xam nga ni grand loolu ku wax ni day yomb yaa ngi nax sa bopp móodloo man jàpp naa ne Ama daan ko ak ko rey la lay mare te Ama jàpp na ni moom far force bu Modou Lo taxawee bu at bi soufflé. moo ko teree jël roi mais face à face gis nañ ne à fois Modou da daan tekk mais mooy wax mu mel ni moom dafa am benn confiance bi nga xamante ne bu jàppee Modou Lo wax. waaw xam nga Ama. Mhm. mooy so mooy wut si. kii wut si nag da ngay wane ni maa la gën a bëgg. mais Modou nag day teeru day day yooru. Mhm. day teeru ku ñu si nag. Mhm. da koy pep. Ama daw song Modou Lo lan moo war a mën a xew. Ah, booy man xam nga lu ma ñan laa yërëm. Mhm. ñun duñ ci am stress supporters yi. Mhm. maa ngi wax rek supporter dama leen a yërëm sax te làmb ji demagul fenn te ndax bientôt la. maa ngi ñaan yàlla ñu yàlla may jàmm ñu mhm. fekkee ak tal mais gis nga combat boobu. combat bu dangereux nga ci ñoom ñaar ñëpp. Modou ak Ama Baldé Ama Baldé ndax. Modou am na fu mu teg tànkam ni moom. jàpp na ni moom fi ne nii am na fu mu war a jaar Ama ba pare. Lo waaw. ci analyse ci waxam ni may waxee. Mhm. ndax koroog amaane na ko boo bëggee ñu maye ko. ñoo bëgg waaw. da du jóg da wut si ko. Mhm. Modou Lo jóg taxaw. mi ngi rek combat bu rëy. waaw kon nga xam ni loolu rek insigne la. Mhm, mais Ama bu tawee soogu Modou Lo moo war a mën a am. waaw xam nga nag loolu moom. loolu yàlla rek lañ ko mën a wax. loolu moom Modou Lo dafa am benn benn ah, ah, benn frappe bu grave bi nga xamante ni boo ko jëlee boo deful ndànk ah, boo. jëlee non xam nga ñoom. jàng nañ. ndax bul fàtte ne Eumeu Sène mooy magu Ama Baldé te koroog bi Modou Lo di bëreeg Ama bi Modou Lo di bëreeg Eumeu Sène Ama gis na ko Modou ku ne xam na ni day sëgg sax di xeex ak yow ku ne ko gis na combat bi day sëgg sax di def ay bi di xeex Ama moom arbitre bu ne fër moo tere mu egsi ci sa kaw. ñoom naa bu ñu dajee. non dañuy daje moom far force. bu ñu dajee lay am lay day foofu nag yàllaa ko xam mais daje moom. Mhm. barki Sëñ Fallu Mbàkke il faut mu am. ci luy ci luy baax la amul fenn ruq buy sedd ci ñoom ñaar ñëpp. ba fii may wax ak yow nii. tey boo fëggoon Ama. ne ko yaag Modou Lo danaa la moo ko jàpp arbi bu suulee ma jàpp ko daal. boo fëggoon Modou Lo jàpp na ni Ama mënu koo yëngal. kon làmb jooju nit ñee ci baax nii di wax rek mais làmb jooju sax mooy jaay bopp. aussi tamit ñu gis la yow nga nekk ancien lutteur xam làmb. Mhm. kon euh, duñ est-ce que xam nga dama leen a yërëm. ñoom ñaar lu tax nga yërëm. waaw supporter guddi ñu toll ni waaw ñoom ñoom ñaari mbëri dama leen a yërëm ku ci nekk yaa ngi ci loo xamante ni fi mu ne nii tey tey tey tey mm-hmm. pour lu faagaagal sa morom rek la te nag ñaari combat yi nag dañoo tolloo nag. dañoo tolloo ëppante doole 100 pour cent mënu fa am. nga gisee Ama Baldé euh, depuis carrière am ba léegi moom. waaw euh, non Modou lay laajte. waaw Modou dafa yàgg depuis xeex nañ sax. nañ fu nekk waaw xeex nañ sax. waaw ci dëkku Luc Nicolaï. Mm-hmm. tey Luc Nicolaï moomu ñu fañ doon xeexe. Mm-hmm. tey doomu Mbuur moo tëggal ko moo tëggaat combat bi. kon moo lay wax ni insigne bu am na lu yàlla yi def foofu ko mais dama ne ci ci ci bëri bi ñoom ñaar. Mhm. xeex bu tàng jër dina ci am. mënuñ cee ñàkk. waaw bu tàng jër. Mhm. ci am. Mhm. da damaa xamul nag. Modou moom Ama moom foo jaar mu ñëw. Ama day ñëw ba damaa xamul ndax bii dinañ ko yëpp ndax làmb naxante la rek. arbitre mën naa changer souffle mu changer stratégie. ndax Ama ndax Modou du ñeexu ñebe de. loo ko bañ bañ bañ di nga xam ni Modou Lo kuy bëreeg moom. Mm-hmm. foo jaar seen bokku tiit ndax bëreewoog n'importe quel mbër moo xamante ni. Mm-hmm. day Modou laa gis mbër moo xam sax day daan day daan ba pare di ay gàllaajam. muy wane ne moom dafa gëm en mystique. ma daf ko gëm. ndax ñoom ñaar bi ñoom ñaar bari na trop. non bari na moom il faut que. est-ce que yaakaar nga ni combat moo koy daan. non mystique dina ci feeñ 100 pour cent mais du mystique a koy daan xam nga li koy daan. Mm-hmm. entraîné boobu koŋ ak expérience. mais du mystique moo koy daan waaw xel mu dal moo koy daan ndax Modou mi ma gis. Mhm. pare na de mais gonek Fatlaye Balde gii gonek Pikine gii sëlu bu ndaw. moom tax danañ teg naa fi jeexal jamonoy Babi loolu la gars yi doon wax. Ah! Balde xam nga Ama Balde. Mhm. ñaari mbër yu am fit lañ ñu ngi waxante dëgg Ama ay champion rek la fi jàpp rajaxe. Mhm. Modou Lo ay tonnerre ku bëri Bombardier ji bëri Balla Gaye. bëri Gris Bordeaux bëri Ama Sène yow da ngay jàpp ni amaam yi xale bu ndaw waru laa mën a jaaxal quoi. mais il faut que mu sóor ni nag sël bu ndaw bi dafa màgg te ay ay ñoo nekk ci seen wet. waaw mais tamit bëgg naa ku ku ku Jules Baldé nekk sa wet Abdou Bakhoum manager. Mhm. ñooñu nga xam ne dañoo judd ci làmb fekk ci làmb jamonoy fan lay balde. Mhm. moo tax man la combat bi am na enjeu quoi mhm. man daal li may mën rek ñaanal leen ñoom ñëpp yàlla defal leen jàmm. mais combat bi. supporters yu jigéen ñi laa gën a yërëm ku ci dem daal utal sa tuuti lem wala sa bekk suukar. baax na ci Modou Lo <laughs> pare nga Ama Baldé pare nga foofu boo xoolee tribune dina am lu fa xew lu bëri ndax ku dëgërul xol mënoo ko mënoo ko supporter ndax combat danger la quoi combat combat de choc la mhm. combat jànq la bu mësul am Pikine parcelle ndax Modou Lo dafa dugg Pikine waaw Modou Lo dafa dugg Pikine duggaat Pikine ah, ah hmm. waaw dafa dugg Pikine. Mhm. duggaat Pikine. Mhm. waaw Baye Baye Mandione moo nuyoo waaw sànq yi doon mhm. déggante rek avant ñi ñëw. Ah, mais yaakaar naa ne ah, ah, comme li ma lay bëgg a expliquer comme tey jii seen avantage ñoom ñaar dama bëgg. daanaan nga ci wàllu làmb bëgg naa nga nga wax ma tey lan mooy avantage wu Modou Lo ak tamit mooy avantage wu Ama Baldé tey ñoom naa ñëpp ko doon jàpp nan nga xëy yabee nit nit su fekkee attaqué mooy forum soo ko ko bàyyee lu ko dal yàq ko tëj nit bu fekkee attaqué waaw boo ko ko bàyyiloo. yaa ko teg lu ko dal ci làmb ji yaa ko teg. akay ma wax la loolu tey. te ku xam ni xam ni Ama Baldé. Eh. fi mu ne nii ñoom. Mhm. yokk puissance am la war a def. ak yokk xarañteem ba tax na kuy bëreeg Modou Lo il faut nga am vigilance. bi il nga il faut nga am rapidité. Mhm. maanaam loolu boo ko amul rek. Mhm. perturbé nga sa combat mais lëg loo ko bañ bañ bañ bañ bañ. nangul ni mën naa daw Modou kuy bëreek moom ku ne mhm. di nga xam ne champion ngay bëreel amatoo droit tëdd di nelaw <laughs> alors mi ngi noonu ah yaakaar naa ne suñu père Xaarim Ndiaye ah, analyse na làmb boobu aussi boo ko gisee ngeen xam ne moom yàgg naa am expérience ci wàllu làmb comme bi ñuy ñëw dañ koo bett dañoo ñëw rek ah, rek fekk ko këram parce que waxtaan ak moom ah, ci wàllu làmb mu may ñu ko ñoom aussi ñu ko ciy gërëm di ko ci sant duñ def rek lu dul jox ko mu tàggatoog mbokk internet yi dañuy xamal ne lu ñu amoon ci waxtu jeex na. waaw di leen remercier di leen remercier ne xam ne xale bu loxoom seetee a bokk ak yi mag ay am gis naa ne am ngeen expérience bi quoi ndax di leen wax ni xëy na combat bi bu gënee jege siwaat naa leen may benn interview boo xamante ni di ngeen xam ni lii mooy làmb ci ci ñoom ñoom ñaar ñëpp. te ñun may. te yéen laa koy may incha allah rabbi. <laughs> incha allah dinaa leen ko may. waaw ndax maa ngi jàng ñoom ñaari mbër yëpp. Mm-hmm. naa ci wax loo xamante ni. adduna yëpp dinañ teg seen bët dinañ xam ne lii mooy làmb ci. barke Sëñ Tuubaa Mbàkke dinaa leen ci wax loo xamante ni. Mm-hmm. ci kàttanu yàlla dee rek ku koy dindi. dëgg la jërëjëf. Ah, alors mi ngi noonu comme ni ko suñu père Khadim Ndiaye waxee di grand champion aussi yor ay champion yi nga xamante ni tey jii day ne ah, seen i doom ak seen i rakk di ci wàllu làmb comme ni mu ko waxee rek ah, ñu defee loolu bu combat Ama Baldé bi jege ak moom la fii comme ça ñu gën a waxtaan ak moom mu ne nañ ci wax li nga xamante ni képp ko déglu li nga xam ne moom làmb di dig di jox dig daje ak benn champion incha allah di nuyu groupe bi ma àndal ay jaajëf.